bu ngeen déggee woote bii ñoo ngi fii ci kër sëriñ Fallou Galass Lo Gaydel buur daali gaynde kokki sëriñ Fallou Galass Lo nag dafa jaar ci daara ji nga xam ne mooy daaray kokki daaray kokki nag ñoo woote lan la ñu woote taxuwaat dongo yi dimbali dongo yi waaye nag majjaalal dongo yi loola waral sëriñ Fallou Galass Lo Gaydel buur daali gaynde kokki saa su bis bii jotee muy le 25 décembre bi ñuy waajal kokki mu ne man damay majjaal damay yelwaanal taalibi yi nga xam ne ñoo ne ci daaray Koki képp koo xam ne mas naa am leen teg yow wala mas naa jëf leen teg yow maa ngi lay yelwaan di la tàllal samay loxo ndax man ci daara jooja laa jaar ci daara jooja laa mokkale alquranul karim waaye ci daara jooja moo tax ma xam lépp lu ma xam loola waral saa su daara ji wootee at bu ne ma ne naa tàllal samay loxo yelwaan naa tàllal samay loxo majjaal luñ ma waaye jox lu mu néew néew lu mu bari bari ma yóbbu ko ca daara ja daara ja nag ku ne xam na ne yitte woo na li ci jiitu ku ne xam na ne ceeb mënta ñàkk suukar mënta ñàkk ay yére mënta ñàkk ay koppar mënta ñàkk ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay nag mënta ñàkk wàllu dund mënta ñàkk ci daara ji loola war a sëriñ Fallou Gallas Lo Gaydel wax ne maanaam lii nga xam ne mooy daaray kokki bis bu nu wootee benn bis laa am man wootewu ma benn bis bis daara ji rek la am mooy daaray kokki kon bis baa ngoog sëriñ Fallu loo gay del daal nee na ku dégg woote biit te ngay jullit di liggéeyal lislaam sunu borom ñor la moo ngi lay tàllal loxo loo ko mën a yal sarax te jëm yàlla rek tax mu defal la ko ci daara ji nga xam ne mooy daara daaray alquran ji nga xam ne mooy daaray kokki kon nag sëriñ Fallu galasuloo mu ngi ci woo julliti yàlla yëpp bàyyiwul kenn kon sëriñ Lamine ana loo ciy dolli boo leen gisee sunu jataay bi rek ngeen xam ni ni ko alaaji Seydou si waxee léegi muy liggéeyub kokki bi nga xamante ni at mu jot bu nu tollee ci waxtu wii kii di sëriñ Fallou Galass Lo buru daal yi gaynde kokki di dongo boo xamante ni dafa laxa saayu liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba lépp mu joyal ko ci daare alxuraanul karim gii nga xamante ni mooy daare kokki di daare ju mag jule xam ngeen ni boo leen gisee image bi ci waxtu wii ngeen xam ni nag sëñ Fallou Galass Lo at mu jot mën na ni benn benn benn image rek lay génn muy waxtu wii muy laajal nag daaree kokki at di yi nga xamante ni mi ngi koy laaj julliti yàlla yëpp ak taalibey Serigne Touba rawatina bokk jullit yëpp boo leen ko gisee rek moom maa jaalal daaree kokki ci lay ci lay ci ci lay génn ci at mu ne kon bokki jullit yi bokki taalibe lu waaye am muy saw ñaq mu bëri mu néew ci loo xamante ni si war naa mën a jëm ca daaree kokki sëñ Fallou Galass Lo mi ngi ci woo bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibe yëpp maa jaalal daaree kokki yalwaanal daaree kokki mboolem lu ko waaye jox nag sëñ Fallou Gëres Lo dina la ko defal ci daare alquran jooju ngeen xam ni fa la ñuy fas yéene di jàng nag téere sunu borom boobu tabaraka wa taala sëñ Fallou nee na ku ci def saw ñaq mi ngi ñaan ci sunu borom yàlla na la alquran fay ci barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf waa mbokki jullit yi mbokki lislaam ñoo ko déggandoo noonu li waral joot li waral daja rek moo waral jootaay bi mooy ressortissants yi nga xam ne ñoo génne ca daara kokki ñooy def at bu jot ñu ànd kook sëriñ ba dajawaat ca daara ja waxtaanee daara ja ak ñi génn ci daara ja njëriñu daara ja ñaanal sunu maam ju Ahmad Saxiir Lo yal na yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem Serigne Fallou loo nag ànd ak mbokki dongom yooyu nga xam ñoo bokkoon na ca daara at bu jot nag buñ jubee bis bi nag sëñ Fallou dafa ni man wóoluwuma leen ciy njéente wóoluwuma leen ciy céet wóoluwuma leen ci màggal koo xam ne am nga ma ma am la ngay sàkku sama mbég li ma bëgg mooy ma jël li ma am man sëñ Fallou ak yow li nga am ñu boole ko yóbbu ko ca daara ja ca kokki moom nag fii mu taxawee nii ak li mu woote réew mi ko ci war a wuy si alaaji Seydou yenn saa yi nga dem ci ab rob ab milliardaire faatu wala millionnaire bu bari alal nu yennu jàgga di ko si kara ba teg ko ci buntu bàmmeelam ku ne di seere ku ne di wax lu baax waaye wax ju baax jëpp la lay jaaxal mooy doo dégg ñooñ alxuraan seere doo dégg ñooñ alxuraan wax loolu nag lu mat a bàyyi xel la loolu loolu lu mat a ragal la sa borom dénk lay million mbaa ay milliards nga def ko ci banque luñ la parrainé mbaa ñu ne la ko ci bisi àddina nga jël sa alal def ko ci te daara mënulaa laa seeral dara alquran mënu laa seeral dara lool lu mat a bàyyi xel la lu mat a farlu la ndax nag sëñ Tuubaa nee woon na ni sa biiru bopp bii yàlla mi la sàkk moom dana la jox la nga ciy def waaye sa biir bàmmeel nag loo fa deful doog fa fekk kon nag kuy lebal lebal alquran kuy fay fayal alquran liggéeyal ci alquran rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki jàngal alquran ba noppi di ko jàngale gannaaw nag yow yoroo daara jàngale woo ko fexeel ba sa alal dem ci alquran kokki léegi nga fa ne ciy dongo ay junni junni yoo xam ne boo ko doon lim fii ngay fanaan seen lekk seen naan ñenn ñi seen i wéyjur dañoo teelawaat ci liggéey ñenn ñu juddu ji jirim ñenn ñi seen i wéyjur seen loxo jotul seen ginnaaw am nañu fan ne ñoo xam sax yeneen i réew lañ ñëw foofu daara kokki te ba kenn du ko fay par weer xale yi seen dépense lépp ci loos sëriñ bi la gàll kon nag julliti yàlla yi ñoo ci war a jàpp sëñ Fallou loo nag tàllal na ñëpp loxo gàcce la nag nga denc sa alal ci banque journée bi ñu teg ko TFM wala RTS wala 2 nga naan waa kook gi ay jàmbaar lañ te yow jàmbaar googu ñoo ci sa dërëm demu ci lu mat a bàyyi xel la loolu daal moo doonoon kàddu yi ñu xam ne daal bis baa ngi noonu sëriñ Fallou nag néewul kenn na ko fa fekk néewul ñu dajale mbooloo ñoo kokki wala di waxante lu baax nan jël li nu am def ko ci ba ne duma ko ci def bu kenn naw milliard ba ne ëpp na ndax alxuraan moom mooy lépp te ci la lépp ne gannaaw saa bu nit juddoo ñu ne na jàng alxuraan bu nit faatoo ñu ne na jàng alxuraan yooyu mi juddu ba xëy faat nag ana loo defal alxuraan. jërëjëf Mamoune Lo li nga wax lépp noonu rek la te li nga wax léegi macha allah kenn du sax loo ci teg euh, daaree kokki nag Serigne Fallou Lo buur daal di gaynde kokki di ci def yalwaan gi nga xam si la moom la def at mu jot. te comme ni ko Lamine waxee ak alaaj Seydou si fépp fu feeñee ci ci lu mel ne télévision wala fu ñu ko gis rek lu mel na loolu la mooy daaray kokki ndax moom kokki rek ko ñor bu xëyee mu ngi ci kokki bu gontee mi ngi ci kokki kokki lay fanaanoo kokki lay nelaw kon alaaji Fallou ah, sëñ Fallou Lo Bour Dali macha di jàmbaar soxna sëñ Mamoune wax na ko léegi nit koo xam ne si la yàlla dimbali na la nga yàlla baaxee la àdduna ba pare te doo def dara ci alxuraan maanaam nga xool sa bopp te alxuraan nekk na loo xam si ne nag ku ci nëbbu dootoo feeñ ba faaw macha allah ndax sëñ Mar Saxiir bi nga xam si ne mi ngi ñëw kooki googu boobu kooki melul nii sëñ ah, ki nga xam ne mooy maam Cheikh Mbaye sëriñam moo ko fa yebaloon bu ko fa yebalee mu ñëw kooki tëgg maag xumbaay baag bumbaay ba nafa mu dem ndal la ca gannaaw kooki nafa ba nga xam ne si la ñëw na jouru gàmmu ñëw comme waxtu wi yoor yoor ñëw nuyoog maam Cheikh. maam Cheikh ni ko ndax yaa nga kokki mu ne ko kokki daa xum ma nga ca ginnaaw ndàll mu ne ko demal kokki laa la yebal demal nga jàngal la fa ngir yàlla te te kenn du fay kenn dara jël bàyyi jiili ak Serigne Sam jox ko ñu ni ko du ngeen xaar gàmm gi ñu àndandoo dellu kokki noonu bi ñu ñëwee ma debba Jóob waa njóobeen googu daggal leen foofu ci ndax ñoom ñoom moom dëkk ba macha allah waaye tey jii kokki dem na ba bu njëkk ba dongay ñi nga daan ñi nga daan dund ci biir kokki waaye jii kokki macha allah presque mooy dundal waa kokki gépp ko loolu daara jëm mooy dundal waa Koki yor waa Koki ko loolu nekk lu am solo loo xam si nag tey jii ku mën na Serigne Fallou Lo ku mën na ñeneen ak ñeneen ñoo xam si ne boo leen dee lim doo doo fi kenn ku nekk kokki rek ko ñor lépp loo xam si la mi ngi koy mi ngi koy yokk ci àdduna ca la def ci alxuraan jooju la ca kokki comme ni ko Mamoun waxee ku fa de nëbb feeñ dootoo nëbb ba faw ñëpp waajal dëkk boobu nga xam ne mooy kokki di ko sëñ Mat Saxir Mbay boobu nga xam ne si la maam Matar Ndumbe seen maam ma nga xam si la moo njëkkoon a ñëw ca daara ja dafa jàngale dafa jàngale ba nga xam si dem na at yu bari ba loolu bëgg a raaf maam Cheikh Mbay ci ak nituk yàllaam jobalaat foofu maam Cheikh Mbay mu dekkalaat daara joojee ba nga xam ne ñëpp naan kokki tey macha allah di sëñ Mat Saxir loo di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem ko daal sëñ Fàllu Lo loolu la woote waan la woote comme ni ko sëñ Maamun waxee wootewul ku fa ñëw dumbu ku fa ñëw di ko tagg wootewul ku fa ñëw di ko wax benn baat lu alxuraan yi nga xam si la moo ko ñor mu nekk ci tànk sëriñ Fàllu lépp lu waaye di joxe daal na ko joxe ci numéro yi nga xam si la daan bi nga xam si la muy WhatsApp muy muy muy Orange Money muy wéew yi nga xam si la gaaw na lool te macha doo ci sonn te koo ko jox dana jot ci saasi boo jaawalee numéro bi ci saasi boo wootee dana la lijjantiwaat delloo sa xaalis kon mi ngi noonu da wa rahmatullahi maa ngi nuyu waa réew mi yëpp di nuyu bitim réew su ma nee asalaamaaleykum wa rahmatullah ma kenn ma umma islamique di wax ni sama mbokk yi toog di samay nit di samay xarit lii ñuy wax ci laay dellu si rek li ñu war a wax ci lu baax lépp wax nañ ko da di wax daa mënta ñàkk moo tax may wax maa ngi woo waa réew mi mépp mépp bàyyi bàyyiwuma góor ma jigéen sama woote bi nag maa ngi koy commencé ci sëriñ Muntaxa moom mi xam moo fi doon sëriñ Touba tey diwoo woo sëriñ Mbaye si Mansour di diwoo ñëpp rawatina sama sëriñ sëñ aboo Baraka moom sëñ Fallou lu nga xam ne ci moom laa sukk jébbalu yaakaar ko tey ak ëllëg moom mii nga xamante ni si ginnaaw moom laa jébbalu ci woote maa ngi ko ci woo chaque année mu takk lu bari ci ay million ni ma yóbbul ma kokki ndax xale ya fa nekk daara ja maa ko waroon gàddu kon nag ginnaaw moom laa woo mu may jox àddeem bàyyiwuma kenn ginnaaw suma sëriñ moo may jox may yóbbu kokki bàyyiwuma kenn maa ngi woo góor maa ngi woo jigéen ku yor ñaar fukk ku yor milliards yi ñëpp maa ngi leen di wax réew mi kokki mooy Sénégal ñëpp a nga fa làkk guy làkk ci dëkk bi rek ci Sénégal la boo demee ñiy làkk-làkk boobu ñeenti daara jàng kon na ñuy woo ñëpp benn alxuraan moo am benn faatee moo am muy alxuraanu yàlla ci ñi fi jaaroon li ñu am lépp alxuraan moo lañ ko jox yàlla nag maywul xam lu mu man joxul kenn yàlla li muy def mooy day fay yàlla day fay de kenn ku ne sa wërsëgu bopp nga fi indaale waaye ku jëfal yàlla yàlla fay la man amila saalihan fali nafsihi bu ko di wax fay rek a tax masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbula loolu bu ko alxuraan di wax fay rek tax man zal lazi yuxrijullaha xardan xasanan suñ borom ba mu koy wax fay rek a tax yàlla joxul kenn kenn ku ne sa wërsëgu bopp nga fi indi yàlla ko jëfal mu fay la li fi gis mu muy barke di wala ngaan ñëpp ñu ko am ci alxuraan lañ ko jëlee lii fi alxuraan am daara am ko fi bu ñu ko génnee ci réew mi di def des kon nag ñuy woo ñëpp bàyyiwuñ am murit bàyyiwuñ ab tijaan bàyyiwuñ kenn ñëpp la ñuy woo kokki ñëpp fa nekk sëriñ ba nag ay donga la yor di liggéeyal yàlla bu prédire ba pare bu buñ génnee kenn ku ne sa kër baay boo fa demee lañ doon ci loolu ngay topp kon sëriñ bi amul ay taalibe ay donga la yor di leen jàngal alxuraanu karim bu leen defaree ban mel nañ wala mel mu génne leen ñu ngi sant ñëpp di sant président de la république bërki dem rek bi mu wootee sëriñ daara yi mu ngi ci waxaat. sëriñ Fallou bu daara bu kokki koy gërëm bu baax euh, wax dëgg yàlla dama xawoon yéemu biñ ma waxee ndongo yi nekk ci daara kokki ak ba ma xamee lañuy ñuy sóor bés bu ne ci añ dafa kéemaane dafa kéemaane tu te dis naka la ko daara yi mën a attane donc il faut que nit ñi jàpp si indépendamment état ku yàlla may dara wërsëg mais nga jàppale daara walla wala jàppale orphelinat yi su ko defee daf lay yokk rek parce que daara bu am plus de quatre mille élèves dafay xëyee di ndekki di añ di reer kooku te état subventionné wu la donc solidarité mooy tax daara yi mën a taxaw. di wax kokki la mu fa gis ak la ñuy añ di soññuwaat nit ñi. pour xam ne daara kenn mënu ko yor yu dul jullitu yàlla yi ñoo ko mën a yor état mënut a yor daara te maa ngi ci occasion waale di wax ñiy wax naan dañuy xeex daara ñu génn ci yooyu daara ñu koy xeex moo ñu jaar daara amuñu daara génn di business nañ bàyyi daara yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xeebu ma dara dara yéewu ma lépp loo xam doomu aadama daal da koy soxla ku am njaboot ami doom sa kër la ngay soxla daara kooku soxla nañ ko maa ngi woo ñëpp.